bëgg na ma toppatoo na ma diir bi mu nekk ci loxo Cheikh Alhaji ma Cheikh Ndiaye Mabé sëriñ bi daf ma sop daf ma bëgg euh, mag ñi itam noonu nii la ñu meloon ci Cheikhul Khalifa Seydi Aboubacar Sy ibnu Cheikh El Hadji Malick di mel ko itam du Cheikh El Hadj Al Dabakh eh, mu mel na itam dellu ci histoire rek ñëwul dara ndax day joxe titre ki ñu tudd Dabakh kan la dafa mel na bi ma ganee àdduna Sëriñ Babacar Si yëg ko dafa yebal mam Peter Diop ci ndokkeel waaye def ci ay bay ab hanian li dabbaaxil quluubi li nag siidi li rabbihi ala jabtu ndokkeel gu maa ngi koy yëkkati di ko jëme sama mbokk mi sama rakk sama sopp sama lépp am na dul yegg sama taalibe <laughs> sama kuutaayal ci ñun mook sëriñ nga xam ne day wulli xoolu jaam ñi waxul li nafsihi jëme ci boppam te di rab bi xool bu mu defar jox yàlla xadab sharahu bégal na ko bésub tey moom sëñ Babacar ay wax de mawlaahu ki mu amul ku dul moom ci wéeruwaay sukkandiku ak yaakaar xurrata ayn yi koo xam ne yaakaar na te ñu ngi koy ñaan su dundee ah, dana jaar feñ maam bi jaar ak bàyyi dana ko jëm comme talaayal kattanam ka ma ci jëkk timbal la mooy sëñ Babacar su sama mag la sama xarit la sama soppe la toppatoo na ma ngir defal suma jikko wax naa ko Bataay wax naa ko Paris ci seen salle ba wax naa ko fii wax naa ko fa léegi rek sama rakk ji bi ma koy jàngal alxuraan fii ci Tiwaawan ci kër Serigne Baye la nekk Cheikh Ahmed Tidiane Sy ancien ambassadeur yàgg lool ci affaires étrangères nekk na ambassadeur Arabie Saoudite nekk na ambassadeur euh, Qatar Doha nekk na Maroc bu nekk ci daare kër gi kër Serigne ci la ñu jàng amiral arabi rahman boobu abu dhabi yoobu ba tey rek ci daara ji la génne tigaar yi ñëpp ma ci kër sëñ Baba kër Mansour sëñ bay jox ñu këram nekk fa yaatal ñu fa te booba ni ma ko waxee léegi maa ngi sama 15 ans yàgg nekk nag sama protecteur yàgg ma bëgg soo fi soree daa dem ba sa xol yëngu te bëggul yooyu moom lépp lu ñuy joxe jëme joxoñ jëme ci moom daf koy moytu lu mu lu mu lu mu yàgg-yàgg ndax dafa xam yàlla nag fii wax naa ko ci zawif loolu bugg ko chapitre boobu dama koy tëj waaye suñu kilifa mooy suñu soppe te itam yàlla daf ma may chance sama papa Hadj Mansour bëgg ma du ma ne daf ma bëggoon nit dana waxe bëggoon bëggeel gi mi ngi fi papa rek la ma daan wax su ma ñëwee mu ne ana pap nañ ma wool pap eh, bëgg ma daal chapitre boobu fa laa ko bëgg ma ñaanal ma moo ci war a topp ngir soppeem rakkam mel na ne mooy sama baay te itam ñu bari xamuñu ne man duma tawu alxaaji Abdul Aziz Dabakh wax naa ko waxaat ko waxaat ko yeex naa ko yëg sax yeex naa ko xam sama papa lay waxtaan bés ne ko papa ne ko man du ma sa taw avant muy génn àdduna trois ans quatre ans mu ne waaw mun ma ne ma sama taw mi ngi judd 1937 maa ngi tudd ko El Hadj Mansour cheikhul xaw mi bien après toogaat naa lu war a mat xëy na euh, six ans soog la am tuuti la samam ñu xam kan mooy alxaj mahamadul mansour yaa mujibal qawmi suudin wal bayadin ala papa la jëkk ko wax dans les années cinquante deux cinquante muy woyu doy waar euh, ñëpp ko soppoon cofeel ga dañul jóge gum fi jóge du tax mbirum yàlla di dox du tee mbirum yàlla yàllay lépp mooy borom kun fa yëkkun kon bokk monsieur premier ministre monsieur président soo ñëwee ak kàddu yu sell yi nga waxe fii ci kanamu sëriñ bi ni la yàlla dimbalee lépp jaar yoon dañ lay xoolewaat bët bu rëy bëgg ci yow kontaan yow ndax fii kër këru teraanga la teraanga rek la yàlla rek la surtout surtout surtout suñu mag yi man dama ko xam ndax moom ma jàngal dama nekk xale jubbanti ma teg ma ci yoon sama soppe la sama xarit la wallahi mat na léegi at ak lu topp tuuti dama ko téléphoné yu waxtaan ma ne ko sëñ bi dama bëgg rek wax ma lu yóbbu nit ci yàlla mu ne Maodo daal sama xarit la ma ne ko sëñ bi dama yàgg sa loxo de mu ree ne tekk ba yàgg mu ne ma ah xam naa de yii de bokk na ci euh, bañ di mer wala bañ di bokk gaaw mer soo meree itam nga góorgóorlu ba ka nga seqal loolee jub sag mer nga baal ko ko soo ko ko baalee Hadj Malick bi ñetteel bi na moo di fexeel ba fàttiku ne fekk yaa ngi koy fàttali euh, affaire ba yeggul fa mu war a yegg te yàlla subhanahu wa taala fi laay dinaa gàttal nee na inna allaha yaxfiru dunuba jamia man yàlla mi leen bind bind asamaan ak yàlla di bind asamaan mu nekkoon يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أنا الحب أول خلق نوعي وعدا علينا يلا إنا كنا فاعلين بالله man sama jëmm ji laaj gi li ma wax dinaa ko def waajal leen seen bopp bés ngi ñëw boo xam ne danaa lem asamaan boobu mën nañu xam ne itam mën na ko lem mën na ko leme suuf inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula maay lem maa fii maa sama kattan laa téye suuf ba jóge fi moo ko bindee lépp sama kattan laa téye mbaar mii naan asamaan ba léegi jóge fukk la su ñu demoon ba disparaître kenn dootu ko mën a dellu ci saa si ku dul man ndax maa fi jëkk lépp ak ñëpp su ko defee nag président sëriñ bi kontaan na kontaan na bu baax a baax ñun amuñu ku dul moom ak magam yu baax yi fi jiitu Cheikh Seydou Mouhamadul Moustapha moo doon taawu Serigne Babacar Tournom Cheikh Seydou Mouhamadul Mansour moo toppoon Seydou Moustapha di doomu Serigne Babacar si Cheikh Mouhamadul Mansour mu jur suñu doom bi suñu rabee Mouhamadul Habib hani an yaid al ilmi id yatajaddadu ma ko waxoon ci Serigne Mansour ci benn anniversaire am mat na léegi xëy na fukki at wala mu jege ko lool bi ma koy nettali sama papa ci jëf sa soxna ay dem mi ngi toog sama rakk di soxna sëriñ bi ba ma ko wax mu ne ma wax nga sama ñëw Serigne Mansour ma ne mu ne demal nga wax demal nga fa hani an yaid al ilmi id yatajaddadu wa bushra lana fal yawma iidun muxalladu fa iidun bihi nil falaaxa wa kayfa la wa ahmaduna al mansuru ramzun wa maqsadu moom sëñ Mansour tara naasa afwajan ilayhi tazahamu yasuquhum wuddun walil kulli mawridu jëlilu karamatin jëliyu maqama xaw ma ka chamsi duha bal fadluhu laysa yuxallu yooyu fi jaar léeg-léeg nga di ko fakastaloo ci du sax da nga koy jóg sax jaal kan du fakastaloo ci lu baax da ngay jóg jaar si dafay nekk loo xam ne tey woon na rek ne ku am kilifa ñu ngi ko jéem xam na nga ko jéem a jokk na nga ko jéem a joxoñ sa joxoñ dara la tekkiwul ci li dara la mënul yàlla ndox ngir yàlla na mu na nar naa la muy def xab la da ci asal xaw ma ku ko waxoon ku du ah, ci asal su ko defee sa jumaay président sëriñ bi bëgg na kontaan na sant na rakkam soppeem xaritam lu ma ko dàq foofu waaye noonu la mag ñu daan def ndax mag ñi suñu demee ba ànd yow ànd bi am fu mu yëggu dañuy xam ne yow lañ fi yow la ñu teg seen wet te bi may dugg ci loxoom di jàng ah, mille neuf cent quarante mille neuf cent cinquante et la wala cinquante ngi bëgg a yàgg ngi bëgg a yàgg mu taxawuma jàppale ma dimbali ma di ma teg ci yoon mais xam na deret waaye ku jàdd yoon dana la xool bët fu xonq moo tax kenn yebu ko léegi sax dafa sedd dafa sedd dafa sedd masul tàng nag waaye jamono dox jamono dox jamono am na lu bari lu mu may nit ñi tey moom mosul nangu lu incorrect du jaaru yoon fii waxtaan naa ci dara sëñ Babacar Mas ku bëgg yàlla la man xam naa ci dara ndax man itam ku yàlla ñor la du ñu tayle suñu bopp ci kenn ku dul yàlla dëggale nag ay jaam lañu daañu am soxla daañu am bëgg-bëgg mais suñu bëgg-bëgg yàlla lañ koy jëkk a diis di ca wax ak moom di ko ñaan eh, su ko defee monsieur le président sa waxin rafet na man kontaan naa trop sa kàddu ni nga waxee Euh, dal gi tey ak suñu doom yi nga àndal muy sa jabar maa ko tudd Youssou Kounté maa ko tudd kii topp ci maa ko tudd ndax Pape Faye ci sëriñ bi la nekkoon Wali fay góor a papam di suñu xarit di suñu soppe suñu doom xarit di suñu soppe di ku baax di ku di ku di ku yàlla baaxal mu am itam dal ak tey ba Mansour Abdoul Aziz Dabakh di suñu rakk ñu tudde ko Cheikh El Hadj Mouhamadul Mansour Cheikh Ahmed Tidiane mi moo topp ci moom Mansour jël ko taf ko ci boppam ndax Mansour itam ku bëgg yàlla li muy nawe nawe nawe dama naan Mansour rabbaani yi ko ku bëgg yàlla nga noonu ku ñeme jàmm yàlla nga noonu nekk nañu kër ngeen baal ma du sawar ci wax wala wane sama bopp ne maa kiyee sama rakk kii guddi day julli ba suba Mansour Sy Dabakh te du ko feeñal moo ko daan wax boobu dama ko mujjoon tuddale ci yam ñu bokk appartement fekk bu ñu waree jógee ma fekk si ma dama kër gu baax jaay sama lenn ci costume jaay sama yére pour héberger sama dañu di man may ñoom ak Assane Fall Mansour Ndiaye Hakoda Papa Sarr tabarakallahu kooku ci Mansour Dabakh ànd ak Papa fay dimbali ko lool ci éducation dimbali ko lool ci wàll yépp kon bokk monsieur le président fii say waajur nga fi fekk say soppe nga fi fekk duñ la fakkatal mukk ndax yàlla sant ñu ko ci kenn tasaamaxu ci alxaaj Maalik ci xutbam xutbatu aljumaa tasaamaxu fi ma baynakum min alxuquq yusaamixkum allah ngalla yéen ngalla yéen ngalla yéen na ngeen di jéem a jéggalante ci seeni duggante ay xaq rek nekk ja bu leen ko sàggane gaaw leen di béré seen bopp na ngeen baalonte baalante su ko defee yàlla am fu mu dëgg ci waxin man leen jéggal ñeen ñëpp unzuru ila jazaakum min ashokoti wa ramda ak xutba ba yàgg na yàlla na su ko defee nag bi damay tëjee sama wax monsieur président sëriñ bi kontaan na bég na bu baax a baax ndax euh, doomam moo ñëw fekk si ko te xawma lu mu tul wax ak ku mu am sañ-sañu wax ak yow te du ko wax lé lu mu gis na rafet na dina la ko wax te su ko waxee fàtte na ko yàlla ko ñor juba ko ñor dëgg ko ñor amul dara lu mu xëccoo kenn ci réew mi waaye fu ko dëgg dab jotee dana ne teg taxaw wax ko kam ko seqal continuer di dem man loolu laa xam ci moom daf ma yar ca ba ma dee ndaw euh, li li ñu naan dinaa la woon biddeewu bëccëg <laughs> moom moon na ma am na bés mu jaar ak man ci tool yi fii <laughs> ci lu ma defoon <laughs> ah. keroog xool na ma bët yu xonq ak yeneen ak yeneen moom sama soppe la sama soppe la sama mag la sama xarit la jël papaam Abdoulaye da baax nag teg ko ci ko bopp papaam itam jël ko ala jàpp def ko ci biir xolam wax naa leen dégg ne leen sama papa ndekke man duma taawam man je suis né waaye sama papa taawam moo ma wax ci